France daal nay wax ne jamono ji ak adduna bi nii nga xam ne moom lay doxee coronavirus bee guerre bi nga xam ne moo am ca diwaanu Ukraine daal di soppar ñi ni nga xam la ñuy doxalee lu jëm ci wàllum économie daal nay wax ne guerre dox nag di soppar ñi ni nga xam ne moom ngay doxee tamit ak proposition yi nga xam ne moom ngay teg ci lu jëm ci wàllum koom dafay baax ko xoolaat nee jamono moo tax doxalin wi ci lu jëm ci wàllum diplomatie économique war nañu ko xoolaat aju nag ci politique de coopération internationale yi ci yéen a gii di 24 heures ñu fekk ko fa nee na secteur privé bi jamono ji seen heure daan jot ci libération wax na ci bi nga xam ne moom la secteur privé bi ak MEDES fas yéene taxaw MEDES journal bi nee na yàgg nañoo joxe li nga xam ne mooy ay tegtale ci lu jëm ci wàllum économie ci partenariat public privé yéene gi di réew mi ko dëcee Innocence Tab Ndiaye mi jiite au conseil du dialogue social daan nay rafetlu bu baax a baax taxawaayu secteur privé bi ci relance économique bi nee ma waa MEDES yéene kaay bi nga xam ne moo am ca diwaanu Ukraine Emmanuel Macron moom nag daan nañ njort ne soo muy tuule ci déndu Europe ak ci déndu Afrique xiif bu mettee métti dina am fii ak fukki weer ak juróom-ñetta la ko waral bokk na ci lii nga xam ne mooy bele 35 pour cent ci àdduna bi dañu koy jëfandikoo te ñëpp xam nañ ne bele bi ma ngi jugee ci Russie ak ci Ukraine yéen gi di Walf Fadjri nee na fii ci Sénégal bu ñu jekkee-jekke dund gi ko metti ba maara détaali njëg yëpp yokk bu mu bett kenn yéen kay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa mbaalo jee caam daan nay wax jafe yi nga xam ne secteur de la santé ñoo ngi koy dundoo nee na ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum wér gi yaram gi ñooñu la ñu gën a sàggane yéen a kaay gi du l'observateur nee na mbootaay gi nga xam ne moo am bu magistrat yu Sénégal tey ji danañu janoo ak taskatu xabaar yi yéen a kaay gi di 24 heures njiitu réew mi di président Macky Sall ma nga woon ca Daaka daan na fay sàkku ay ñaan ngir adduna bi am jàmm yéen a kaay gi di Vox Populi nee na Macky Sall génn na lu toll ci benn milliard ngir nag jumaay Tiwaawoon ji nga xam ne ñoo ngi koy liggéey yéen a kaay gi di réew mi quotidien Aïssata Tall Sall ministre bi ñu wax na ci passeport diplomatique bi Ousmane Sonko bi nee na service yu Assemblée nationale ñoo sàkk ñu daal di koy renouveler te renouveler googe nga xam ne moom la ko def loole nag munta tax sax Ousmane Sonko génn réew mi kàddu yi Aïssata Tall nag naqari na ne ñooy layal Ousmane Sonko ñoom nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax nee nañu topp gi ñu topp Ousmane Sonko ak tere ko mu génn réew mi ngañ ñu Aïssata Tall Sall nekku sa daf caa war a noppi yéen kaay gii di fo ñi nga xam ne ñooy waa yeewu askan wi demoon nañ ca diwaanu Tiwaawan ñoom sàkku nañu fa ay ñaan sàkku nañ fa tamit am majorité ci ci lu yëkkatiwaat yéenekaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa Mbaye Ndiaye bu APR nee na ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dégmal maanaam du ñu d'accord benn yoon li nga xam ne mooy ay liste parallèle njiitu réew di président Macky Sall ay missionnaire la yónni ci gox yu bare bari ci Sénégal waaye nag loolee dafa mel ni jurul jàmm ndax Macky Sall sàmb si la yónni woon ca diwaanu Mbàkke waaye nag ak pëccëxoo gu mat sëkk moo fa am ab am ba sànni ay grenade lacrymogène sa diwaanu Ziguinchor ña fa Macky Sall yónni woon gisuñu Benoît Sambou gisuñu Doudou Ka yéenekaay gii di Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall bëggul ay liste parallèle ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu armée sénégalaise ma nga ca Nord Sindia ca Casamance di fa bombardé ña nga xam ne ñooy way fippu ya ñoo dëkk Sindia askan bi nee waaye yéene kaay gi di bés bi nee na Nor Sindia foofe nag mooy feevu rebelle bi di Salif Sadio yéene gi di Sud Quotidien nee na en tout cas mooy base rebelle yi jamono ji armée bu Sénégal ma ngi koy gi du l'Observateur xëy di tàggee journaliste bii di Ndate Diop génn na àdduna mu nekkoon taskatu xabaar bu nekkoon groupe Futurs Médias ci RFM ñëpp nag li nga xam ne moom la ko séedee muy nit koo xam ne nit ku jullute nit ku disponible nit ku li muy def yéene kaay li